alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasulika muhammadin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ixsaanin ilaa yawmi ddiin amma baad mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci topp ko ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mbokki jullit yi li gën ci loo xam ne nit dana ci jeexal ay waxtoom. li gën ci loo xam ne nit ki dana ko paase dana ko jeexal ay waxtoom di ci jeexal ak dundam bokk na ca jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam jàng ak dundam nu doon def nu doon wootee su jàmm amee nu muy def su jàmm amul ci lu muy nekk jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak dundam day tax la fa jaar ci ay jafe-jafe ak nam ko faje ci ndimbalul boroomam ak yoon yam jaar ba boroomam dimbali ko loolu day tax jullit bi am dalu xel ci ne boroomam mu ngi ànd ak moom ci ndimbalam ak ci jàppaleem su fekkee ne jéem naa jaar ci yoon yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca la jaaroon moo tax boroom bi ne in tansurullaha yansurkum su fekkee ne jàpp jàppale ngeen seen boroom ci def lim leen digal bàyyi lam leen tere nee na yansurukum kooku moo leen di dimbali wa yusabbit aqdaamakum moo leen di dëgëralit ba seenub noonu du leen mën a dara lii moo tax jullit yi la ko tàmbalee ca xarnu bu njëkk ba muy seekal bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund ak ci saxaabaam ak ñi ñëw seen gannaaw seen itte àgg ci lépp lu aju ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu xam ko ña doon dund ak moom gëstu nañ ba xam léppam ba ñuy jàngal seeni ndongo yi jàngal nañ leen léppi yonent bi bàyyiwuñ dara bañ demee ba ragal ne mën naa réer wala dara sax ñu bind ko faf téere yi ñuy tudde téere yi siira tam doon yu wér moo tax ñuy wax ak téere yi ñu tudde téere chamail nga xam ne ci li ñuy jàngale yonent bi léppam téere yooyu mu ne bàyyiwul dara kon bu dee lu aju ci askanam xam nañ ko bu dee lu aju ci ay turam sax yi nga xam ne dañoo sax ci sharia xam nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ab téere benn ci benn xadis mu ne am naa juróomi tur mooy Muhammad ak Ahmad ak almaaxi almaaxi mooy Kayfar ci effacé nee na lu tax mu ne ndax nee na yàlla dafay far kéefër ci ak dikkam ci ak dikkam wooteem bi dafay far kéefër kon moo tax ñu tudde ko almaax na mooy alxaashir itam mooy koo xam ne dañuy dajale ñépp fa moom yowmal qiyaama xeet wépp dañ leen dajale ci kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maay alaaqib ba tey itam alaaqib mooy ka mujj moo tax mu teg ci ne lay alladi laysa baadahu nabiy mooy koo xam ne ab yonent du ñëw mukk gannaawam xadis boobu mu ngi ci Buxaari ak Muslim xam nañ lu yi ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind nañ ko itam xam nañ ne bisub altine la juddu xam nañ ne ci weeru rabiul awwal it ci la juddu muy weer bii ñu nekk waaye nag juyoo nañ ci ban bis la ca téere yi dëppoowuñ ci bis bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam juddoo ca weer wa am na ñoo xam ne dañ ne ci ñaareelu fan ga ci la juddu bu ci nekk xaj wax ñëw na ci am boo xam ne dana ci juróom-ñetteelu fan ba la judd am ci yoo xam ne day ne fukkeelu fan ba la am ñu ne fukkeelu fan ba ak ñaar la lu ci nekk ay boroomi xam-xam wax nañu ko lii sabab si nag ci juyoo ci bis boobu yi moo di ne bis bi yàlla def cee santaane wut dara fukki fan ya wala ñaari fan ya wala juróom-ñetti fan ya wala dara su ci borom bi tabaraka wa taala santaane ndigal kon ni jullit yi def ba xam ne bisu kor yi mooy bis ba njëkk ci weeru shawal te juyoowuñ ci loolu ak nañ def ba xam ne bisu fukkeel ci weeru tabaski muy dul xijja bis boobu mooy bisu tabaski nga xam ne benn téere juyoowut ci loolu su fekkoon ne santaane ajo woon na ca ca bis ba mu juddoo kon kooku kenn du ko fàtte wala ñu di ci juyoo kon nag ab santaane da coo ajuwut moo tax loolu am xam nañ lépp loo xam ne ci ak dundam la ci ak ndawam xam nañ ne baayam mi ngi génn àdduna fekk moom ganeegul àdduna bi baayam di génn àdduna ganeegul àdduna moom xam nañ ña ko nàmpal ak fu ñu ko doon nàmpale xam nañ ne euh, bi yaayam génne àdduna soxna suñuy wax ay man mu nekkoon ab jaamam boo baayam ci baayam la ko donne woon soxna soosu nàmpal na ko euh, ba maamam Abdul Muttalib moo ko yore fekk mi ngi doon xale bu ndaw bi mu demee bay toll ci juróom-ñetti at maamam jooju génn àdduna bi mu daataan génn àdduna mu dénkaane ko jox ko doomam yu ñuy wax Abu Taalib ne ko nang ko fonk nanga ko ittewoo ndax ab jirim la Abu Taalib yar ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi tabaraka wa taala moo ko ñoŋal ci ndawam laabal ko ci lépp loo xam ne ceddo ya dañ ko daan def ci jamono yooyu muy ahlul jahiliya may ko it ay jikko rafet ba ñim dëkkal sax ñépp niñ ko daan tudde mooy al mooy kuñ wóolu ki tur lañ ko tudde woon jullit yi xam nañ lépp lu aju ci la doxoon digganteem ak Xadija bint xuwaylidin radiallahu anha ba wàllu commerce doxee seen diggante ba mu tukki ci ba dem fi saam ba delsi ba yàlla dogal sëy dox seen diggante ba ñu sëy jullit yi réerewuñ dara ci mbir moomu bind nañ ko ci téere yi saxal ko xam nañ ne xadija radiallahu taala anha génn na àdduna ñetti at avant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di gàddaay di dem madina xam nañ ne yorul woon seneen soxna ba ni xadija génne àdduna moom rek la ma sa yor bi mu génnee àdduna nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk soxna suñuy wax sawda gannaaw bi mu takk soxna suñuy wax aïcha ki nga xam ne moom rek la mas a takk ci soxna soo xam ne gone la ah gannaaw loola soxnaam yi fa jaar yépp jullit yi xam nañ leen xam seeni tur xam kañ la leen denc ak nan la denc ba demee woon xam nañ itam mboolem ay doomam yu góor ya ak yu jigéen ci seeni tur xam nañ ni ñoom ñëpp itam Khadija moo leen jur ba mu des kenn muy ki ñuy wax Ibrahim ah, soxna suñuy wax Maria moo ko jur muy koo xam ne buuru Misra moo ko mayoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaani yonent bi sax jullit yi réere wuñ ko mi ngi ci biir téere yi ni jëm ja meloon nga xam ne ab dessinateur bu dessin daganoon bu ko desee war naa mën a génne ku meloon nañu wax waaye nag ginnaaw desee dëgëru teewut jullit yi mën nañ koo xam dañoo wax ne doonul woon ku gudd bañ naan njool maa nga ne waaye doonul woon ku gàtt itam bañ naan ndaama gaa nga ne bokku la tudd rabaa dafa nekkoon itam boroom couleur boo xam ne bu leer nàññi la dafa nekkoon itam ku bari karaw dafa nekkoon ku am bët bët yi dañoo mage woon ba noppi boole ko ak ñuul dafa nekkoon itam koo xam ne yaram wa ci jëmmi boppam saxul karaw koo xam ne ku bari la maanaam dënn ba lañ jublu ak biir ba xoola mbir yu xóot yooyu rek ñu fexe ba xam ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp dëppoo nañ xam ne borom bi tabaraka wa taala yebal na ko mu doon ab yonent bi mu amee ñeent fukki at xam nañ ne it yónni googu mooy li gën a rëy mooy xew-xew bi gën a rëy ci dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax borom bi tabaraka wa taala bi muy wax xéewal yi mu defal xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf leen yëgal ne xéewal googi gi ci gën a rëy nga xam ne borom bi tuddee na ko xéewal moo di yónni gi ko yónni ci seen biir mu ne laqad manna allahu ala almuminin yàlla day mi ngi waxtaane xéewal gim xéewale ñi loolu mooy lan mu ne isbaasa fihim rasulan min anfusihim mooy yónni gim yónni ci ñoom yonent boo xam ne ci seen biir la jóge mu di leen jàngal alxuraan di leen jàngal sunna di leen yar te xam ne kat ci ak réer gu lëndama lëndam ci la leen fekkoon jullit yi xam nañ bépp xew-xew boo xam ne xew na gannaaw boo xamee ne yónni nañ ko ba kero ñu koy digal nekkoon a dem woote ji ak woote ba nam tàmbalee ak nam ko defe ak nam doon jàngale lépp jullit yi xam nañ ko xam nañ jafe-jafe yi nga xam ne juddu na ba mu tàmbalee woote détaillé nañ lépp lu aju ci muñ gëm doon muñ moo saxaabaam ak lor yañ leen doon teg ci màkka ba àgg ca mbir ma jafe ba mu yebal saxaaba yi ne leen génn leen dem xabasha muy réew ma leen ñuy tudde Éthiopie tey ndax buur nga foofu boo xam ne kenn du fa tooñ kenn ñu dal di génn dem foofa xam nañ ñoom jullit yi ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jafe-jafe yooyu ci màkk daana def saa bu waxtu aj jotee ndax xam ngeen aj moom jiitu na lislaam yéefar ya dañ ko daan def ak ñu dul ñoom saa bu waxtu wa jotee nga xam ne dañuy daje màkka di fa def yi ñuy def da daan génn di daje gan ñi nga xam ne ñooy ñëw màkka di leen yëgal woote bi muy woote di leen woo di leen xamal ne ah fii day am naa fi jafe-jafe kan moo ma war a mën a làq ci yéen ndax waa Quraysh muy samay bokk dox nañ sama diggante ak ma mën a jot li waxi sama boroom di def noonu ba yàlla dogal mu dajeeg waa Madina ci gan ñi ñëwoon màkka am ca mbooloo mu dajeeg moom ñu waxtaan benn yoon waxtaanaat ñaari yoon ba dëppoo ci mu war a gàddaay fekki leen ci biir loolu la gàddaay ànd ak Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu ñu daal di dem Madina ma ne jullit yi xam nañ lépp lu aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam nañ sax guerre yi nga xam ne def na ko te bokk ca ak guerre yi nga xam ne def na ko te bokk ca waaye dafa yebal ay nit ñu dem ñu compter ko ba wax la ne guerre yi nga xam ne da ko yebaloon ca bokku ci sax mat na cinquante six guerre yoo xam ne ay nit la yebal ñu dem euh, jottali ji lislaam yor seeni ngànnaay ak seeni kaamil dajeeg nit ña woo leen ci lislaam la xew ca diggante yu xew ca loolu lépp xam nañ ko xam nañ dundam bi dund ci Madina dib jàngalekat dib àttekat di imaam dib wootekat xam ajam gam aji woon xam ñaata umra la umra xam ne gannaaw ba mu gàddaayee ñëw Madina ajaatul genn aj lu dul aj googi mu aj tàggoo ko xeet wa ñu tuddee ko xajatul wadaa jullit yi xam nañ kañ lañ faratal asaka xam kañ lañ faratal aj xam kañ lañ faratal koor kon doyloo rek xam ne jaamu yàlla gi yàlla santaane na ko waaye dañoo xam ne santaane na ko ba noppi xam itam kañ la ko santaane xam nañ jikkoom ya sallallahu alayhi wa sallam xam ne mooy ki gën a tabe ci doomi aadama yi mooy ki ci gën a dëggu waaye mooy ki ci gën a nooy jikko mooy ki ci gën a am mooy borom jikko yu kawe yi borom bi tabaraka wa taala wax ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ne ko yow day muure nañ la ay jikko yoo xam ne yu rafet la yu màgg la mooy ki gënoon a jàmbaare ci nit ñi gën cee bari lu muy jomblu waaye mooy ki ci gënoon a woyof gën cee toroxlu mooy ki ëppoon nit ñi kersa bañ di ko tëkkale sax ak xale bu jigéen boo xam ne demagul cim néeg maanaam séyeegul dafa daan nangu addiye suñ ko ko joxee waaye ku ko ko joxit faaw dana fexe ba jox la dara faye la ko waaye nag daawul nangu sarax ndax du ko lekk daawul mer ngir lu jëm ci boppam waaye nag bu dee lu jëm ci boroomam loola moo ko daan merloo lekkit lu mu gis rek lekk lu mu tuuti tuuti du ko xeeb lu mu xeebu xeebu itam du tax mu xeeb ko dafa daan toogaaleeg fuqaraaw yi ak miskin yi di leen dimbali di seeti ña wopp di génn di ànd ca rob ya yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana kaf waaye nag daawut wax lu dul dëkk da daan ree waaye duñ dégg kàddoom muy xaqtaay bokku ca woon dafa daan jàppale waa këram ci liggéey ba ca liggéeyu biir kër ga sax suñ ko waxee mu ne man mu ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam man nag maay ki gën ci sama njaboot anas ibnu malik radiallahu taala nee na nekk naa ci kër yonent bi salallahu alayhi wa sallam di fa liggéey nekk xaadimu yonent bi lu mat fukki at musul ma ne gëdd ma ne lu tax nga def lii wala lu tax defoo li ma la waxoon kon loolu dafay wone jikko yoo xam ne yu doy waar la jullit yi xam nañ yi yàlla jagleel yonent bi nga xam ne boolewu ci kenn nit nañ yi ko jagleel it nga xam ne boolewu ci benn yonent xam nañ ak jaamu yàllaam xam nañ lu daan dunde xam nañ jëf yam daan jëf ya ca doon ay jaamu yàlla ak ya ca doonul sax ay jaamu yàlla xam nañ jataayu sharia ak jataayu dundu yonent bi ba jàng ci moom yoo xam ne sax léegi léeg nit ki day ruus wax lu jëm ci loolu ndax xóot ga ak sori ga waaye fekk la ko waral nit ki ñuy yebal ko mu doon dem ci nit war leen a woo ay jëfam yépp war a doon diine loolu day natt boo xam ne bu diis la ndax si lépp dañ ko war a xam ndax ñu man koo roy moo tax dañ ko daan gëstu ba foo xam ne kenn waru faa àgg ak nit kuñ ne àgg nañ fa ak sa baay wala sa sëriñ sax bootu mu naqari la waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg nañu moom foofa lu ko waral mooy lu mu def lu ne dañ koo war a xam kon xam nañ léppam àgg na ci kenn ci mushrikoon yi sax yahood yi mu dajeeg salmaanul faris yi benn bis ne ko waaw yéen seen yonent bi moom xanaa jàngal na leen lépp ba ci nu nit ki demee ci wanag sax jàngal na leen ko salmaan ne ko waaw waaw fekk kooka saboote la ci jëmoon jublu woon waaye xamul woon ne sax jàngal na leen nu ñuy demee ci wanag daf ne ko xanaa dana leen jàngal lu ne boo tudd dana mujj sax àgg ak ci jàngal leen ci wanag nu ñu fay demee seulement ne ko loolu yaa ko yëgut am na bu yàgg nee nanu su ngeen di dem wanag bu leen jublu xibla bu leen ko won gannaaw kon nga xam ne diine ji bàyyiwul dara amut leen lu jàngale it te toxaluñ ko kon xew-xew yu yi xew ci dundam yépp jullit yi xam nañ ko bind nañ ko xam nañ nan la amee ak kañ la am ak fu mu amee moo tax lépp lu ci aju ci loo xam ne lu nit war a roy la wala mu war koo jëfe loola it jàngale nañ ko boo dikkee da nga gis lu mel noonu ci li ñu tuddee al isra al isra wal muy rañaan ga lu aju ci gàddaay ga lu aju ci tabaxub jàkkaam ji ca Madina lu aju ci fondation bi mu def sax état bi mu taxawal ci Madina na mu ko defee lu aju ci accords yi doon dox diggante ma ñi dul jullit yi muy sulxul xudaybiya yu demee noona ak at mi nga xam ne moom la ñuy tuddee aamul wufuud at mi nga xam ne mboolem délégation yi yi nekkoon ci àll bi dañ doon ñëw di wuy si di dugg ci lislaam ba borom bi tabaraka wa taala wàccee saaru nasr mu ida jaa nasrullahi walfath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja ñu gis nit ña ñu àndandoo ñoom ñëpp ñuy dugg si ci diine ji bari lool xam at ma nga xam ne ca la aj xajatul wadaa aj ganam ko aje ak mbooloo ma dajeeg moom ba lim ba la muy bari bari sax boroom xam-xam yi takk ko ba xam ñaata la ñu wax ne téeméeri junni ci ay jullit aj nañ ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca at moomee noonu la jullit yi topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu doonee ndaw ba keroo mu génne àdduna bàyyiwuñ dara ci ak dundam ay jaamu yàllaam ay lekkam ay naanam ay colam ay jaamu yàllaam bàyyiwuñ dara ba mu génn àdduna ci atum fukkeel ak benn ci gàddaay ga muy bisub altine doonte juuyoo nañ ci wan weer la waaye nag bisub altine bi juyoowuñ ci juyoowuñ it ci ne génn na àdduna fekk mi ngi am juróom benn fukki at ak ñett Ah, juuyóowuñ ci ne am na ñeent fukki at yoo xam ne doonagul woon ab yonent kon gannaaw bi mu doonee ab yonent dund na ñaar fukki at ak ñett fukki at yi ak ñett màkka la ko dund fukki at yi mu dund ko madina sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak gàttal mbokki jullit yi luy tax jullit yi war di màng lu mel nii muy fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam juddoo ba fi mu génne àdduna ak li fa xew lu tax jullit bi war ko jàng mu doon ab xam-xam bu rëy moo di lépp diine la dañ ko war a xam ndax dañ ko yebal mu war a jottali borom bi ne ko jottali mu jottali ba ne lee ndax jottali naa ñu ne ko waaw waaw nga mu ne kon yàlla seedeel kon kooku moo tax ittewoo siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ko ci wartee fi jullit yi ci la bokk ndax ñu mën a xam la ca aju ci luñ war a jëfe ak lañ ca war a jëfe gannaaw loolu ngir dégg bunt boobu am nay tomb yoo xam ne danañ ko mujje bi ci jëkk moo di jàng dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dolli jullit bi ak cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye nag ak cofeel ci anam ga nga xam ne noona la ko bëggee moom boroomam tabaraka wa taala bëggee ko noonu ndax kat lépp lu aju ci diine rek borom bi tabaraka wa taala akub yonentam dañ koo leeral ba ñu xam ne lii nii lañ ko bëggee ni nga xamee ne julli bàyyiwuñ la ak sa bànneex ngay laamatu nu la neex jullee nu la neex woore nekk noonu même bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ci jaamu yàlla yi la bàyyiwuñ la nga bëggee ko nu la neex dafa am nuñ la boo bëggee bi nii kon jàng siiraam dana tax nga xam noo koy bëggee ci wàllu sharia ñaareel ba moo di su fekkee xam na ne jullit ya lépp lu ci aju ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dund nañ ko bind ko même yi nga xam ne sax ay détails la yu ci ak dundam la jiitu muy doon ab yonent sax bind nañu ko xam ko kon wax dëgg yàlla li nga xam ne gannaaw bu mu doonee ab yonent la loolu taxut ñuy wax di ko ittewoo ba jéem a xam la doon dund ba mu doon a gutub yonent nga xam ne booba sax kenn royagu ko moom kon gannaaw bi mu doon a yonent moom taxul ñuy wax kon sharia dara réeru ci lépp lañ bind ñetteel ba mooy jullit yi bind nañ ba bind yoo xam ne sax ay ndigali ki tere ajuwu ca ci mbirum yonent bi sallallahu alayhi wa lu mel noonu bind nañ ko kon li nga xam ne ndigal ak tere na ca loola moom taxul ñuy wax su jullit bi xamee ne ñenteel bi dundam gépp ak i jaamu yàllaam détaillé nañ ko détaillé bu sew bu xóot boo xam ne bàyyiwuñ dara jullit bi kon day mën a dogu mën a waat ne jaamu yàlla yi nga xam ne moom la santaane yépp jëfe nañ ko ci ak dundam moo ki saxaabaam bàyyiwuñ nu jaamu yàlla ni ko imaam Malik waxe lu nekkul woon kero diine du mën a nekk diine ba mukk lu nekkul woon kero li jublu ci kero mooy ci dundu yonente ba ak saxaabaam lu bokkuloon ci diine ji nee na du ci mën a bokk ba faw juróomeel ba su fekkee xam nan ne boroom xam-xami saxaaba yi ak boroom xam-xam yi ñëw seen gannaaw yemuñu ci rek jàng ne jaamu yàlla gi farata la wala sunna la waaye dañoo jàng ba jàngaale sax jaamu yàlla gi kañ lañ ko farataal ak fan la woon kon loolu daf ñuy jox benn firnde buy wane ne ñoo ñi ndekke kon bàyyiwuñ dara amut lenn lu aju ci jaamu yàlla loo xam ne réere nañ ko loo xam ne luñ bàyyi la juróom-benneel bi mbokki jullit yi mooy ñu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaqam ci sun kaw ji tege ci sun kaw lu rëy la xaqi mbëggeel ja ak xaqi roy ga ak xaqi war koo jàng ba xam ko xam diine xam lu mat a defak ak lu mat a bàyyi loolu xaq ju rëy la ma ne xaq jooju pour xam ko ak jàngale ko ak jàng ko doyut benn bis cim at boo xam ne ci la ñuy dajaloo rek ne dañuy jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jeex jeex tàkk du dem te lii gën a doy waar moo di yàlla xam na ne bunt yi eh, bu ci nit kiy wax sax dafay dafay yéeg naqar ndax dafa doon bunt yoo xam ne ay tàqalikoo daf ci am ci biir jullit yi te fekk la koy waral ni ko boroom xam-xam yi di waxee sos ci diine ñu li ci bokkul loolu mooy tàqale jullit yi duñ bëgg ci di ci wax waaye da ngay dem ba tollu ay jamono da dégg ñuy wax wax yoo xam ne mooy tax wax ci du mën a ñàkk fan yii rek ñoo ngi dégg ñoo xam ne dañoo wax koo xam ne dafa wax ba àgg ci presse bi ba àgg ci ne ah ne defuñu dundal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy li ñu tuddee gàmmo ñi ko dul def ñooñu bëgguñu yonent bi carrément am koo xam ne dafa dem ba àgg ci ne ñi nga xam ne dañuy yéefarloo ñii gàmmo ñaar yooyu leen lu ci nekk lu ëpp la maanaam amut daan wax dëgg yàlla déggooguma kuy wax ci turu sunna bay yéefarloo koo xam ne day gàmmo loolu dégguma ko ku ko wax wax nga loo xam ne teguwul nag ci xam-xam maanaam kenn du ci yéefarloo kenn waaye fa ñoom mooy lii bokkul ci diine ji yonent bi xamu ko ay saxaabaam xamuñu ko te luñ xamul woon bokkul ci diine ji foofa la ñuy waxe ñoom te li ngay seetlu te suñ ko doo waxante muy dëgg mooy lu baree bari ci li ñuy wax ne juddu yonent bi la ñuy waxtaane dangay gis ni ci biir xew-xew yi cërub yonent bi mooy gën a néew ca waxtaan wa lu gën a bari maam ñoom ak bàyyi ñoom la ñuy faral di waxtaane foofa waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëpp cëram àggu fa fi nga xam ne foofa lañ ko doon séentoo te it su fekkoon ne kon nit ki dafa jël bis jagleel ko maamam ak baayam kooko wax dëgg yàlla yëfi boppam la waaye nag suñ ko jëlee ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko moom ba àgg ci di wax ne ku ko deful nag bokkoo ci ñi koy roy wala bokkoo ci ñi ko bëgg su boobaa nag jaadu na wax ak ñi nga xam ne loolu mën naa doon am lënt ci ñoom ne ñu baree bari nag tey mbir mi leer na ci ñoom nañ waaye ñim lënt ci ñoom nga xam ne mën nañoo yóbbaale lënt jàpp ne ah keekat ginnaaw demul wala ginaaw deful nangam kooku daa bëggul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jooju tuuma day ju rëy joo xam ne taxaw dindi ko war naa dañ xam ne kon ka gàmmawut dund bi sallallahu alayhi wa sallam la ko waral mooy dafa jàpp ci alquran ak sunna di xool la yonent bi alayhi salaat wasalaam santaane ci ay jaamu yàlla moo di ko def lam santaane wut ñu xam ne loola bokkul ci jaamu yàlla ñu bañ koo def kon foofa la tegu teguñu ci nag yenn kàddu yoo xam ne dañuy wax ne ka koy def dafa réer ba génn lislaam wala yéefarloo ko déedéet loola moom du waxi boroomi xam-xam boroom xam-xam yow waxuñu loolu euh, su ko defee nag loolu mooy waral ñu junj lu mel nii di ci dellusiwaat euh, day xew-xew boo xam ne dafa rëy ndax dafa laal ñépp du xew-xew kër baayu diw wala kër ndeyu diw waaye bu fekkee ne ci lislaam dañ ko delloo ci yonent bi te yonent bi di yonentum ñépp ñenn ñi di def ñeneen ñi ci des di toog kii door a dugg ci lislaam doon ko bees xamagut lu xew ki nga xam ne jàngul amaana xamut lu xew di xool juuyoo yooyu wax dëgg yàlla lu diis la ci ay jullit waaye nag bu boobaa itam ñu xam ne la ko waral nag mooy loolu moo di ku bëgg a dund diine di def sab coono di sonn ngir yàlla sonneel ci loo xam ne xam nga ne lii dana am tuyaaba sonneel ci loo xam ne xam nga ne lii yàlla da koo santaane lii ab yonentam da koo santaane te bunt yim santaane bari nañ lool lu ci bare bari jullit yi sàggane nañ ko yàlla nanu borom bi tabaraka wa taala def tawfiq allahuma rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi alaxirati xasana waqina adaba annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب allahuma waffiq almuslimin lilcamali bisunnati nabiyi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam wa jannibhum masalik aljahli walbidcati waldayac wa waffiqhum lima tuxibu wa tarda innaka rabbana wa mawlana ala kulli cheyin qadir